maanaam yar. Mhm. teggin. Mhm. ormal nit. Mhm. loolu dafa di ay valeurs yi nga xam dafa nekk si ñun mais bu ñu demee ba gis nii ñi nga xamante ni tey jii ñoo war a mën a constituer un exemple. dans ce pays dañoo mën a constituer un exemple pour la jeunesse. dem bay doxalee neneen lu wuteeg li nga xamante ni mooy yoon. wala di waxee neneen ni. Euh, yaakaar naa ni loolu du li nga xamante ni euh, dana defar réew. rafetul sax moo tax day bëri xët-xët. day bëri fitna. ndax nag bu lépp weesoo itam nit lañu ñu donte ay journalistes ñu mais on est des sénégalais. am ay waajur. am ay waajur juddoo fii ci réew mi jàngee fii ci réew mi amee fi diplôme ba tey jii am sañ-sañ toog. ci rajo wala ci télé di wax. et ça on l'exige gis nga ay diw dafa far fii diw dafa far fee. dafa maanaam euh, fa nga féetee la rek. tey jii politiciens yi tey ñoo dem ba dugg ci carcan bi nga xamante ni boo waxee nii.

mën naa waxee keneen ci yar ak teggin ba xëy na li ñu bëgg danañ ko am waaye xët-xët ak fërtifët lan la lijjanti ci mim réew boo ma defee ma def la mhm. après fu muy mujjee fenn donc je pense que nañu dal gën a apaiser li nga xamante ne moo di espace politique bi ak espace social bi mhm. fii amuñu kenn ku ñu faral et ça je peux le dire en toute liberté ci li ñuy xëy fii nii au niveau de la RFM te fa laay daanele mhm. ça fait bientôt bientôt deux décennies ma nekk fi amul bés bu ñuy xëy du tog du tog li nga xamanteni moy information wala actualité xol lan la wara mëna def dans notre mm-hmm. journal mm-hmm. te duñ ko def en toute liberté mm-hmm. et parfois même des directeurs de nga xam dañ nek ci ils sont mis en minorité dans cette rédaction là dañ ñu proposer li ñu ne leen bi ni la et les gens le font en toute liberté amul maanaam faruñu fenn mais pourquoi les gens veulent jël ben étiquette diko collé nit ñi que ni da ngeen far fi wala da ngeen far mel ni que ñun dañ fi nekk dañu def lu def di def lu ñu na mais nañu respecté nit ñi. dama lay wax la moo waral loolu Diagne Diagne xam nga la moo metti li ñu naan oto boo nekkee ci kanam oto bu nekk ci kanam la ñuy corné gis nga li xam lu ko indi c'est-à-dire que da nga nekk ci kanam am benn jalousie bi am par rapport à la à la la presse d'abord il faut oser le dire. loolu mooy dëgg. politique bi ñëw dugg ci. waaw presse bi profité ci. Mhm. ñu leen kaay la ñoo diaboliser GFM. Hmm. pour parler de Barthélémy Dias pour ne pas le nommer quoi en fait c'est-à-dire que. Euh, du ki nga xamante ni moom moo moo moo moo demoon buntu assemblée nationale takk boppam. Mhm. indi pique bam teg fa ay xeer ne Abdoulaye Wade amu fi droit def troisième mandat. Mhm. kooku moom mhm. bi ñuy xeex 2011 xamoon nañu Abdoulaye Wade am na droit am na droit def troisième mandat. ci télé la ko waxee vidéo yaa ngi fii. moo toogaat ne. Macky Sall am na droit def 3e mandat Macky Sall raayal ko ginnaawam bu mu rafet kooku mo toogaat ne kaa ñu 3e mandat te bu nit deewaatoon encore dafay nekkaat pareil non non man du du du du genre politicien bu amé bu amee buy buy xalaatee noonu. wala bu doxé non à tout moment man kooku lay xol xam nga man passe doguma la sax. mais c'est-à-dire que man ma vision pas euh, va au-delà de ça. Hmm. parce que kep ko xam politique numuy doxé xam ni que ñom si ay propagande la ñuy doxé en fonction des intérêts du moment. loolu ñoma légui dafa am li nga xamanteni buñuy dem ba ñun bëgg ñu yàqal suñu métier. Mhm. buñuy dem ba di ñu manqué respect. jiitoo bett jaay am yenn comportement yi par rapport ak ñun ñun itam war nañoo mën a am dayoo ak fulle bi nga xamante ne danañu togg wax parce que man jàpp naa ne Babacar Fall lu mu def ni suba du question fit mhm. parce que c'est une personne que j'ai pratiqué. Mhm. lu mu def ni man mën naa ko keneen mën na ko mais question de principe la question de fulle la que ñu joxante cër après leneen li nga xam ñoom ñi koy defar de seen biir entre politiciens loolu ñoom la ko ñoom ñëpp laa la bu fekkoon ne li ñuy wax dëgg la ci ñoom koo ci du fi ñëw ñoom ñëpp xam ko xam ko nag la ngay xaar mhm. nga woo ko nag am nga émission RFM wala TFM buñ ñu fontoo ku ci mën dëgg dëgg dëgg sa kër wala nga dem feneen mhm. c'est ça la xamul ah, xamul tax ma mhm. wax mooy xam nga eh, eh, waaw lii quotidien bu El Hadj moo ko bindoon lii quotidien kooku moom El Hadj moo ko moom 2S la bokk ah journal bobu ci continue xam la la bind Villa Océane mi ngi en effet lors d'un contrôle le 24 dernier 6 à la Villa Océane au Corniche des almadi mhm. Villa Océane ak TFM lu bok may kër yu sundour kër yu sundour Villa Océane ak TFM lu bok dara c'est-à-dire loolu lañu ñuy jaxasee nit ñi de cette unité def flagrant di nax nit journaliste profité nan naan lañu dañuy courant c'est pas vrai du deug El Hadj Ndiaye moo du deug lañ may nit ñi jamm dama dama jàpp dëkk bi amna amna yoon amna justice donc euh, bu fekkee da nga japp na ñu waxee ñoo dañuy noppi dañuy nopi no yus du du tontu tey fa war ñoo tontu gis nga paas man man man boo may bàyyi xel personnellement personnellement daanuma sax di dugg ci détail yu mel nii du ci sax dugg parce que amna fulu bu nga xamante ni am na yu bëri nga xam ne du ci dugg mais quand même je pense que véritablement tey dafa jot dafa jot ko ñu joxante cër ci réew mi parce que amul kenn ki fi gën kenn nañu wax ñu liggéey rek. xam nga nañu liggéey et puis euh, comme on dit euh, politiciens ñom la seen biir et quand je parle je parle du pouvoir comme de l'opposition man awma xaj ak seen si ñom parce que amul kenn ko nga xamni ne nga sama ci man personnellement. et je pense que c'est le cas pour tout le monde. li ñu bëgg rek mooy nañ ñu jox cër nañ ñu respecter parce que on est de très bons professionnels. très bons professionnels quand je dis très bons professionnels maanaam dañoo dem jàngi fu ñu war a jàngi ba ñu concours jotee. dañu dem defi concours public. jàng ñu jànga ñu les rudiments du métier ñu ñëw di ko pratiquer amul dara lu ci soppeeku fileeg boobu maintenant nag ku ci nekk nag sa intérêt jëm ko défendre mais nañ joxante cër. bu ñu politique. voilà nañ nañ dem politique Youssou Ndour Youssou Ndour mooy politique. voilà GFM politique ñu. mais man paas aw eh, mais may ma am leen lu ma la lu ma la leeral Pape Ngagne Ndiaye dafa posé Barthélémy Dias question ne ko. Mhm. wax ma benn journaliste GFM boo mën a reproché dara mënu ko dara mënu ko amul. après yow yaa toogaat nga ni GFM nangam wax nangam c'est-à-dire di jël ay une une di ko manipuler nit yi. l'observateur musul bind loo xam ay fen la. pass man maa ko wax xaar xaar ma ñëw xaar ma ñëw dañuy dañuy def benn jeu de mots def ko entre guillemets nga yem ci nga yem ci une bi boo duggee ci contenu bi lépp lu mu fa bind nit ki moom moo ko wax am na mhm. mhm. ñu may jàmm nañ dem bon. xale bi bi mu amee 7 ans bi mu amee 15 ans dañ koy violé. Hmm. cest à moom nee na amul mënul compter ñaata góor ñoo ko violé ko kaw suuf ba ci magam bu mbokkal papa. dëgg koy xanaa xanaa xanaa xanaa dafa am quelque chose de particulier bu lu koy yàlla cërale ci wàllu taar wala ci wàllu jekk wala je sais pas. en tout cas daal sept ans ba quinze ans ñu ngi koy viol. infection yu méttee méttee oh méttee la àndal. déglu ko. man vingt et un ans laa xam. mais dama dund viol dama dund kaaw viol. bi ma amee sept ans. ci lañ ma njëkk a violé. mu suñu benn takkandoo. kër gi ñu takkandoo fa la amoon place mais moom boobu daf ma doon violé. chaque jour di ma ay coow ay fekk dara di ma violé suñu classe suuf tamit am na ku nekkoon foofu di liggéey affaire télécentre chaque jour bu ma duggaat ci douche bi daf ma daan fekk foofu di ma tëddee di di nekk ak man foofu ci douche bi ñu bëri daal bi ma nekkee xaalis sax dañ ma doon tëddee wax dëgg yàlla góor yu bëri bëri bëri egg nañ sama kaw même sama mag mu bokkal papa sax tëddee na ma bi ma amee quinze ans man daal ni ma amee sept ba ni ma amee quinze ans dañ ma doon tëddee rek léegi nag fu mu manqué laa xam affaire bi métti ma mënu ma ko surmonter su ma tëddee guddi damay fanaane jooy ba fajar mënu ma nelaw guddi affaire bi métti ma suñuy dëkkandoo nguur bu ma demaan rek samay xaritu mag yu góor bu ma nekkee xale dañ ma daan tëddee léegi affaire bi métti ma sonal na ma trop wax dëgg yàlla parce que indil na ma ay infection yu bon yoo xamante ni faju naa ba sonn mais li ma mënoon yëpp dem naa dem naa ci garabu olof yi dem naa ci médecin yi ci gynécologue mais garab yi dafa cher dañ ma daan violé rek tout le temps sama mag bi mu say jee dama demoon nekk moom su xëyee liggéey sax ci garab di ma tëddee en tout cas li ma subir viol mat na bëri na mënu ma ko compter façon goobu nekk tëddee na man ma nekk xale façon bu nekk si bi may wax yow nii ñemee ma sax am ci kër ku ma ñaan si damay bañ parce que dama ragal dama ko ragal trop trop trop trop sax affaire bi nekk sama xol ma ko génnee mu may teg ay métit mënuma ci dara dem naa bëgg a xaru ñaari yoon première fois bi dama naan paquetu dinaa garab ku xaru rek dee ma noppalu ndax ñoom ñëpp ñu ngi construire seen vie ma leen di gis ñu yor seen i jabar ak seen doom man may am loo métti chaque jour chaque jour dafa métti ci man ma naan paquetu garab ma tëdd fi sama yaay ñëw gis ma sama kanam bi neewi ak sama yaram bi mu gis ma may lox sama yaram bi tàng cër mu ne ma lan la mu ne ma jugal mu ne ma jug ci la ma yóbbee hôpital après ci laa ko ne dama bëggoon a xaru léegi ñoom ñu ne dama réew c'est parce que ci kër gi xaw ma dara lu man métti ba pare may xaar parce que man mënuma wax loolu ma ko wax dama jàpp ni su ma ko waxee ak may yëpp ñoom ñëpp parce que li ma dëkkal ak ñoom sama doom baay ñu may jégalu mais sama yaay dafa nekk genre jigéen bi nga xam ni lépp loo ko wax rek da koy waxewaat moo tax mënuma ko wax mais moom jour ma sama mag góor bi di ma violé fekkee na ko parce que jour boobu daf ma violé ay guddi ci laa yeewu gis sama buntu néeg bi ubbeeku après ci laa yuuxu ndekete mu tëgg sama wet mu jug daw xam na ni moom la mu xëy yóbbu ma hôpital ñu xool ma ñu ne nekkatuma jànq bu yàgg sama yaay dafa foogoon ne lépp kooku la mosul xam ne bi ma nekkee xale dañ ma doon violé chaque parce que bokkuma ko ko wax ndax sama viol mag bi bépp gan bu yëg man nag dama sonn sonn naa toog ku ma jàppale rek laa bëgg parce que ins bi may wax ak yow li ci mois bi passé tamit dama demoon a mu tëb premier étage après ma daanu xam ne ni sama ndigg bi dafa am ay sama bassin bi am problème léegi ñu ne dama réew naa woon ma faj xalaas. tas waaw mi mi ngi noonu daal mais man daal. Hmm. li ma jaaxal sept ans ba quinze ans. waaw ña koy viol te ña koy viol bokkuñu. waaw mais nag dina am fu mu toll nag jànjootu nekk viol sax mais dañuy dem ba tàmm loo ko xëy na loo xamante ni mooy loolu xam nga tamit sa mag boo bokkal papa Diagne <laughs> attends loolu. mais mais man li ma ci gën a jaaxal mooy mooy loolu nu mu mënee am. Mhm. boobu ak léegi ñu koy nëpp nëppal. déggoo neen déggoo neen la bi ko magam violé yaayam yëg na ko xam nga ci wax ji mi ngi wax naan yaayam na ko yàlla bal mais teewul làmminam parce que violé bi ko magam violé rek ku ñëw ci kër gi dina ko yëg. jaajëy wax loolu. waaw donc moom day dem ba day am kersaw sax di wax yeneen viol yi mu dund. naa nag romb nañ cadre viol bi parce que parce que mi ngi ci mi ngi ci vingt huit ans. Hmm. infection bi mu bi mu nekkee fi mu nekk nii nii nii. Hmm. tey na ko genre tey na ko dund ni mu waree dund ko en fait fu ne dem na fa gynécologue yi euh, maaman yi fu ne dugg na fa mais ba léegi ça va Hmm. waaw nan nan la koy dikkee yooyu infection nan la koy dikkee. mais non yooyu xëy na ñi nga xam ne ñoom xam nañ dara ci wàllu woowu mën nañ ci mën nañ ci avancer mais de façon loolu dafay am. Hmm. dafay am. Hmm. genre sëy yu bari yooyu noonu da lay indil yenn infection parce que surtout ak ay góor yu bokkul. xamoo kan mooy jëlee feebar fee ñëw wàll ko yooyu yëpp da ci am comme nag moom yooyu mun ci avancer mais de façon koo xam mën na ko ci dimbali. ci wàllu woowu mën nañu contacter ci. 77 actuellement bëggoon fi xaru deux

Euh, gars yi dafay jógee ñu leen di woon seen comme sa copain comme tey man ak yow nii ñu xamante miinante nga jékki-jékki gisatuloo ma ma dem beneen sans message Cheikh ci loo nekk affaire yaa ngi rajo ba léegi nga ne ma non léegi nekkatuma rajo looy def maa ngi ci leneen affaire man la man maa ngi Côte d'Ivoire wala maa ngi Mali wala Sierra Leone dama fi am liggéey boo xamante ni chaque mois 600000 laay fayee ko 700000 dañ maa jox logement jox ma lépp ku la jege miin la xam la kese moo la ko mën a def. Mhm. fekk dara du ci dëgg. dëgg boobu boobu mu ngi mbéb waa ji. dañ koo jaay moom tam mu dem war laa jaay yow boo ñëwee. Mhm. fekk fa loolu nga war a mën a jaay keneen te mënoo woo koo xamul pour convaincre pour mu ñëw. def na nga fi benn boo yokku Sénégal woon mu dee fa. Hmm. Mali gi am na fa ay Sénégal yoo xam ne loolu moo leen fa dara. da ngay dem ngiru. dañaan yónnee ma sa CV nga yónnee ñu xëy 2 jours 3 jours kenn woo la ne la jël nañ la kii ab militaire la woon. jóge ci dem ba war a dugg war a def renseignement généraux benn femme bu mu xamante ne Ziguinchor temps yi mu nekkee Ziguinchor kooku moo jékki-jékki message ko wax ay waxu Côte d'Ivoire saa takki bagaasam wutali Côte d'Ivoire waaye li mu dund diggante Dakar ba ko ba Côte d'Ivoire hmm. dootu ko waxte daw na nag ñëwaat hmm. comme moom militaire te am na yenn kii yoo xam ne bu reflété da koy xam voilà déglu premier parti bi deux mois en arrière foofu la lépp commencé quoi parce que comme ni ma la ko waxee dee maa ngi woon après ci la maayu tolof tolof may feebar di feebar di feebar ba par la suite ma décidé ne damay bàyyi quoi damay bind papier ma bàyyi parce que yenn yi jaratu ko léegi à ce moment ci la ma man femme bi ma yóbbu parce que femme moom ma yóbbu femme bi ma yóbbu foofu noonu Côte d'Ivoire ñoo ngi xamante en 2019 si euh, sama séjour euh, Casamance fa la ñu wanoon ma loo xamante ne nit la parce que xamoon naa papaam xamoon naa yaayam waaw ñu dund xaritoo gu maanaam bu jéggi dayo ba ma amoon ci moom confiance surtout milieu boobu nga xamante ne maanaam boo déggu doon seen làkk après ñoom dañuy bloqué wu ñoom duñ bëgg wax ak yow léegi gëjoon nañoo déggante ma ak moom ça faisait plus maanaam waroon na un yi nga xamante ne déggante wuñ léegi pile à cette période ma perdoon numéro moom mu recontacté waat ma par whatsapp ma ne ko ñu waxtaan noonu sawa sawa raar nga kërën kërën foo nekk rek mu ne ma maa ngi Côte d'Ivoire dama déposé woon parce que moom moo ngi doon jàng te intellectuel la moo ngi woon université Assane Seck soon Euh, dafa déposé woon ay dossier mooy euh, internet bi parce que dañ doon lancé offre xaw ma fan finalement ñu jël ko job benn entreprise Côte d'Ivoire ma ne ko ah ça c'est bien ça c'est bien parce que loolu laa ko doon sollicité à chaque fois ma ne ko bul bàyyi dara waaw sa chance bu jotee rek dinañ la jël jël continuer di déposé mu ne ma effectivement waaw sa conseil la suivre ba finalement waaw maa ngi Côte d'Ivoire te allah fii nii bokkul comme Sénégal parce que fii te paye bien et tout et tout ma ne ko ok am benn problème mu ne ma est-ce que doo bàyyi armée nga ñëw ma ne ko bàyyi armée ñëw mu ne ma waaw après man automatiquement ay jamono maanaam dama ko doon wax ne ne sa maa ngi waaj a bàyyi mais mu am lu kii sama xel ma ne non bàyyi ma teel lii sama bopp quoi sama baat bi nii bon si la ma ne jox ma sa CV mais je ne parce que ñoom noonu la ñuy dawalee approche mu ne ma jox ma sa CV ma jox ko sama CV mu ne mën naa la déposer par la suite euh, ñu déggante noonu après toog une semaine deux semaines déggante wuñ léegi sama papier boobu ma bindoon pour bàyyi mu wàcc après ma génn quartier noonu laay toog di toog ay semaines écoulées ba mooy période avant Korité bi ma demoon université Cheikh Anta Diop pour régler ay papier may génn petite porte bi tànk sama téléphone sonné mu doon lan 225 euh, ma ne lii indicatif bu Côte d'Ivoire la te lazim ma décroché ma jot benn ivoirien mu ne ma sa waa yow yaay diw nee nangam nangam wax filiation ma ne ko effectivement man la mu ne ma félicitation entreprise nangam jël nañ la embauché nañ la waaw le choix a été difficile parce que bëri woon ngeen ba sax jël surplus de poste bi Pur soxla woon pour manam, mën a éviter maanaam ñi nga xamante ne dañuy désister pour ñoom ñu bañ am manquant ma ko ok am ben problème mu ne ma de dañ lay jox délai le 2 mu ne ma dernière délai je dois me présenter en Côte d'Ivoire maanaam avant le 2 ma ko ok am problème ma xool mu doon lan une semaine d' intervalle moo ma dese une semaine aw ma passeport ta avion bi laa bëggoon jël voie aérien si laa daw automatiquement ma régler forte somme ma dem bureau passeport mais manam tan bi mu waroon jël une semaine bobu non du arranger donc ban option moo ma dese woon ma jël yone souci si ko par Mali léegi bi ma contacté kii bi parce que le gars j'ai voulu lui poser certaines questions mais daf ma rediriger maanaam si kii sa CV mu ne ma demal ci kooku nga laaj ko ay nombre loolu boo bëgg rek moom il a été présent wax nañu ak moom kërëb kërëb et tout si bi ma ne ko passeport mu ne ma non non passeport boo ko bëggee déposé day jël temps dangay jël yoonu suuf si man nii sa ba may ñëw yoonu suuf si laa jël ma ne ko ah yaay booy man militaire laa dee te domaine bi ma ne woon maanaam xam naa dara tuuti si Mali mooy que ne maanaam actuellement terre sensible surtout lan ñun sénégalais yi ko ne tej nañu suñu frontière mu def yema ko ne ma man jigen man li mëna def yow ba jall fofu fofu dara amu fa kërën kërën ma ne ko ok am problème par la suite la préparé samay bagage go lo ci mu ci dégg rek waaw pass euh avertir na dal ñi nga xam ne dalagu leen mais jagn ni yàgg nga avertir jagn li yàgg ah. man maa ngi rappelé mas naa ko fi déglu yàgg na. toog nañu fii ma ne la am na ci koo xamante ni mbokkam bu mu bokkal benn village moo ko yóbbu la woon néew la ñu indiwaat. Hmm. te def fa une semaine. la woykat ba da wax rek. nit ku lay wut jéem jéem jotu la. day seet ki la gën jaar mu jaar fa wallaay loolooy ma la ko wax. ak <laughs> wax na Diagne bàyyi mi ngi noonu uh-huh. euh, il faut Sénégal itam Diagne ñu yeewu wax dëgg am na loo xamante ni xel sax munu ko nangu. Mm. xel rek xel munu ko nangu. Mm-hmm. sérieusement quoi. Mm-hmm. ah ñun de yàlla yàlla may nañ nag ñu jot a tukki un peu partout. Ah. waaye léeg nga dem ci ay dëkk gis euh, étranger nañ fa nekkee bon particulièrement des sénégalais. parce que mm-hmm. bu ñu demee ba gis nii que am nañu jege réew ma ñëw. Euh, peut-être accompagner équipe nationale. di gis ñu bëri ñi xam ne dañ lay ñëw jege. ñu jàgg nañu découvrir loolu. ay Libéria. ay Guinée équatorial ay yeneen ak yeneen mais gars yi di dund ay métit yu tara tara tara tara tara clairement moo taxit bon euh, teraanga comme ni nga ko waxee rek fu mu la fekk rek ngay ngay ngay nga koy nga koy nga koy jëli ji hmm. waaye toog am ko sa réew dara gënu ko hmm. itam bu fekkente ne mën naa ne toog sa réew am fi sa teraanga dara gënu ko ndax au moins yaa ngi sa dëkk mais dëkk jàmbur boo fa demee en général euh, tu vis très souvent situation yu xaw compliqué ma wax la benn une minute lii dañ koy éggale leen di